بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مبكي جلدي نيجي دمانيكو سنو بروم تبارك وتعالى فاسيني ديكاتاكيين تسنتيري بيدي الاجروميه تاي ñu wara tambalé ci an-nawasiq qal borom téré bi néna babul awamil ad-dakhilati ala al-mubtada'i wal khabari wa hiya thalathatu ashyaa kana wa akhawatuha wa inna wa akhawatuha wa zanantu wa akhawatuha borom téere bi na ne bunt bii da cee bëgg a leeral way jëf yi nga xam ne dañuy tab bi ci mubtada xabar nee na yooyu nag ñetti mbir la benn bi mooy kaana ak ay bokkam beneen bi mooy inna ak ay bokkam beneen bi mooy zanna ak ay bokkam almubtada wal xabaru marfuaani walakin qad yadxulu alayhima amilun lafziyun fa yugayiru wa yansaxu xukmaha asaabiq wa min hadihi alawaamil allafziya annawaasiq nee na mubtada xabar ñaar lañ yoo xam ne dañ leen di ñoom ñaar waaye nag amil mën na caa joo xam ne amil lafzi la daal koy soppi daal di soppi atte ba nga xam ne moom la njëkkoon a am te mooy rafaa ga ak nasab ga mu wëlbati ko mu ne bokk na ci awaamil yooyu nag li ñuy wax al awaamil al lafziya te mooy an nawaasiq baatub an nawaasiq bu ñu ko dee xamle naasiqu wa nasq bu ñu ko dee wax ci luxa dafa am ñaari maanaa benn bi mooy jëlee fa dara al izaala yuqaalu nasaqtu shamsa nasaqati shamsu al dhilla iza azaalat maanaam jant bi jele na fi ker ga masalan jant bu leeree ba dugg ker na fi joge kon lo lañ jublu ci nasx ci bu ko wax ci lugha waye ci istilah fi ni ci jublu jele fi ab atte bo xamne ne mubtada khabar amé won nako ko ko benen atte ay xetam nak ñetti xet la salasat anwa ben bi moy lo xamne da fay rafa mubtada nasab xabar dafay rafa mubtada nasab xabar loolu nag kaana ak i mbokkam ñoo koy def ñoom dañuy dugg ci mubtada xabar daldi di rafa ma nasab xabar ja mu ne yooyu nag ñoom ñëpp ay afxaal lañ kaana ak i mbokkam ñoom ñëpp ay fial lañ ñu leen di tudde bu njëkk bi maanaam eh, mubtada mi nga xam ne sopp kaana soppi na ko dañ koy tuddee dañ koy tuddee maa moo lay kaana maanaam ismu kaana li nga xam ne kaana daa jëf ci moom dañ koy tuddee ismu kaana bu ñaareel bi ñu koy tuddee xabaru kaana waaw boo nee kaana muhammadun nashitan dañ naan muhammadun ismu kaana la marfuun nashitan xabaru kaana la mansuub kon loolu lañ jublu ci euh, bu njëkk bi dañ koy tuddee ismu kaana bu ñaareel bi ñu tudde ko xabaru kaana kon kaana ak ay mbokkam noonu la ñuy def ñu duggee ci mubtada xabar dañuy soppi mubtada mi tudde ko ismu kaana wala ismu mbokkum kaana xabar ji ñu nasab ko tudde ko xabaru kaana wala xabari mbokkum kaana bu ñaareel bi maa yunsabul mubtada wa yarfaxul xabar boo xam ne moom dafay nasab mubtada rafaa xabar boobu nag mooy inna wa axawaatuha inna ak mbokkam waxiya xurufun ñoom nag ay xaraf lañu duñ ay afxaal wuteeg kaana ndax kaana moom ak i mbokkam ay xaal lañ inna ak i mbokkam nag ay xuruf lañu wa yusamma al awal min maamulay inna isman kon bi nga xam ne inna daa jëf ci moom maanaam mubtada xabar mi nga xam ne inna da caa dugg mubtada mu njëkk mi dañ koy tuddee ismu inna wa yusamma asaani xabaru inna ñoom nag li leen la ñoom ñaar mooy dañoo safaanoo rek kaana ak i mbokkam ni ñuy def mubtada xabar safaan bi moom la inna ak i mbokkam di def mubtada xabar kaana ak i mbokkam na ñuy bi moom la inna ak i di def mubtada xabar kaana ak i mbokkam nañuy def dañuy rafa mubtada nasab xabar inna ak i mbokkam nañuy def dañuy nasab mubtada rafa xabar kon gis nga ñoom noonu la ñuy def bu ko defee ne ñëw ci zanna nag ak ay mbokkam moom yunsabu al mubtada u wal xabaru moom ñaar ñépp lay boole nasab muy zanna ci mbokkam wa huwa zanna wa axawaatuha ñoom ba ay afxaal lañ wa yusamma al awal min maamoole zanna wa axawaatiha mafxulan awal wa thani mafxulan saaniyan su ko defee boo ñëwee ci maamooli zanna ak i bu njëkk bi dañ koy tuddee mafxul mu njëkk mi al mafxulul awal bu ñaareel bi ñu tuddee ko al mafxulu saani mel na nga ne zanantu muhammadan nashitan gis nga zanantu muhammadan nashitan muhammad day jàppe naa ko mooy ku sawar kon yii mooy li ñuy wax an nawaasiq muy kaana ak mbokkam inna ak mbokkam zanna ak mbokkam su ko defee njëkk a faram fàcce kaana ak mbokkam كان أك أي مكان برم تير بنانا فأما كان وأخواتها فإنها ترفع الإثم وتنسب الخبر وهي كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس وما زال ومن فك وما فتح وما برح وما دام وما تصرف منها نحو كان ويكون وكن waa asbaha wa yusbihu wa asbih taqulu kaana zaydan zaydun qaa'iman wa laysa amrun shaaqisan wa ma ashbaha dalik borom téere bi dane kaana ak i mbokkam dañuy rafaali sim nasab xabar comme ni mu ko waxe woon kaana nag ay mbokkam mooy yi muy tudd kaana moom mooy ndey ji am saa kaana nekk na am saa nga ne gont na asbaha xëy na addaha yor yooru na dhalla bëccëgu na walla yendu na baata fanaan na saara mujj na laysa dàq day dàq laysa déet wa ma zaala ak ma mësul dañ wa man fakka ba tey mësta dañ wa ma fati ba tey mësta dañ wa ma daama ak li féeg mi ngi sax seeni feelu mudaari ak seeni feelu amrin ndax yëpp ay feelu maadin lañ waaye seeni feelu mudaari ak seeni feelu amrin moo tax ma ne wa maa tasarrafa minhaa ak lépp loo xam ne wëlbatikoo na ca am na ci nag ay benn benn yuñ ci settee da dañ la ko tuddal kaana wa axawaatuha hiya kaana wa amsa wa asbaha wa abdaha kon ni mu ko limee noonu si ñoom ñépp seeni jëf tarfaxul isma wa tansibul xabar kaana mi ngi bokk ci nawaasixul mubtada ndax saa bu duggee ci mubtada dafay dajal atte bu njëkk ba jox ko beneen atte wa dalika bi ihdaathiha lahu rafhan jadidan da koy indil ak rafaa gu bees xeyrul awal bu bokkute bu njëkk ba wa yuslihu al mubtada isman lahaa ñu mujj di wooyee mubtada ma ismu kaana wal xabaru tusil xukmahu bu dee xabar tamit day dindi rafaa ga indi fak nasab wa yusbihu xabaran lahaa ñu ne ko tudde xabaram kaana muhammadun mujtahidan lan moo ci doon cosaan boo dindee kaana ji muhammadun mujtahidun mubtada xabar rek la nga dugal ci kaana mu daal di soppi muhammadun mu rafaa gi ci nekkoon nekkoon rafaa mubtada rafaa gi nag moom geneen rafaa la mooy nekk gum nekk ismu kaana mujtahidun mu daal koy soppi def ko mujtahidan mu nekk ismu kaana kaana al jumlatu qabla duxuli kaana muhammadun mujtahidan yarfau mubtada wal xabar mu ne waa adadu asar nawxi min nawasiqi salaasatu asara naasiqan wa hiya ala salaasati aqsaam gis nga nee na la xeeti nawaasix yii nag fukk ak ñett la waaye dañ koy séddale si ñetti xaaj dañ koy séddale si ñetti xaaj xaaj bu njëkk bi maa yaxmalu asal amal bila sartin wa hiya alfaas maanaam moom day jëf jëf jiite mooy dugg ci mubtada xabar soppi mubtada mi def ko lu si mom rafa ko soppi xabar ji def ko xabaram nasab ko yoy juróom-ñett la kana asbaha addaha dhalla amsa bata laysa sara yi ñoom dañuy jëf seen jëf joji ci lu amul ben charte buñu xasse xasee dugg ci mubtada xabar rek nonu lañ koy def kana وهي تفيد اتصاف الاسم بالخبر في bil المنقطع moom kaana liñ ci déggee mooy dañ ciy déggee maanaam ne xabar ji dafa amoon ci lu weesu kaana naasu ummatan waahida nit ñi nekkoon nañu di wenn xeet ba tey awil mustamir naxwa qawli taala kaana allaahu gafuuran rahiman ba tey mën naa signifier maanaam mën naa melawoo loo xam ne luy continuer la comme nga ne kaana allaahu gafuuran rahiman bu dee asbaxa تفيد اتصاف الاسم بالخبر في الصباح نحو قوله تعالى فاصبح في المدينه خائفا يترقب بني اصبح مو بنجي دغي ني لسم جي دا ام سي وقتو صبا دا فا ام سي وقتو صبا مام خيو خيو بي بورمي تا بورم ابن مالك مي الفيه داي واخنا طرفه كان المبتدا اسما والخبر تنسبه ككان سيدنا عمر ككان ظل بات أضحى أصبها أمسى وصار ليس زال برها فتع وانفك وهذه الأربعة لسبع نفي أو نفي متبع ومثل كان دان مسبوخا بس بما كأهط ما دمت مصيبا درهما ومثل كان دام مسبوخا بما كأعط ما دمت مصيبا درهما زل بدي زدل تفيد اتصاف الاسم بالخبر في النهار مثل ظل الجو باردا bu dee zàll moom dañ ciy dégg ne li xew dafa am ci waxtu bëccëg bi waaw maanaam xabar ji dafay xew ci waxtu bëccëg bi dafa melawoo melaw bëccëg zallal jawwu baaridan bu dee amsa tufiidu ittisaaf al ismi bil xabari fi l masaa'i misla amsa an nasiimu alilan bu dee baata day tegtale maanaam loolu dafa xew ci guddi gi ndax baata zaydun masruran mooy sayd dafa fanaanoo mbégte dafa fanaanoo mbégte bu dee laysa tufiidu nafiyal xabar yi ani ismi moom dafay dàq xabar ji ci lisim ji comme nga ne laysa zakaru kal unsa góor ak jigéen ñu kon dàq am na foofu saara tufiidu al naaw ta tufiidu taxawal al ismi min alatihi ila al lati yadullu alayha al xabar su fekkente ne saara la dafay tegtale ne mbir mi dafa jóge ci lii dem ci leneen dem ci leneen comme nga ne saara ab du'afaa wa aqwiya way néew doole ñi day mujj nañu am doole way lompañ ñi kon dañuy yemane foofu tey ba euh, insha allah suñ biddi bi di ñëw ñu eggale lu aju ci kaana ak ay mbokkam euh, ñetti xaaj yi leen séddale woon loolu mooy benn xaaj bi insha allah wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammad wa ala wa sahbihi wa sallam